laa hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim mbokki jullit yi ñu ñëw ak yéen ci fi bi ñuy wax an nahwul waadih mooy naxwu bu leer tey nag ñu ngi ñëw suñ ñeenteelu darsu darsu bu ñëw pour jàngale tey ni moom moom la ñuy wax fi'lul mudaari' waxoon nañ jëf ñetti xaaj la mu jëf ju paase ak jëf ju teew ak ju jëf ju jëf juy ñëw si kanam comme ni ñu waxee ne fi'lu ñetti xaaj la mooy fi'lu maadi ak fi'lu mudaari ak fi'lu amr fi'lu maadi moom lañ jàngale woon kawaj mooy fi'lu maadi mooy jëf ju paase léegi nag tey ñoo ngi ñëw si ñaareel fi'lu ñaareel fi'lu bi te moom may mu mudaari moom may jëf ju teew wala jëf ju dikk comme nit jëf ji nga xamante ne moom moo koy def si jamono euh, jam nekk jëf joj noonu la ñuy wax fi'lu mudaari dana la jox fii ne ay misaal mu ne الفعل مضارع وفعل مضارع mais al amsilatu yi mooy misaal dina la jox misaal misaal yoo xamante ne soo ko dégloo rek yow danga xam lan mooy fi'lu mudaari mu ne mu mudaari nag balaa ñuy dugg moom soo ko bëggee xàmme rek jàppane si nii lay commencé benn mu commencé si alif wala si nun wala si yaa wala si taa moo fi'l mudaari si yii nii lay commencé moo tax ñu tënkee ko anaytu mu ne aksilu dinaa raxas yadaya samay loxo ma aksilu dinaa raxas wala maa ngi raxas kon fi'l mudaari day tekki jëf ju teew wala jëf juy dikk axselu dinaa raxas yadaya samay loxo dégg nga mu ne albasu dinaa sol siyaabi sama yére albasu dinaa sol wala maa ngi sol lépp lay firi mu ne nalaabu ñu ngi fo wala dinañ fo bil kurati bil kurati ci bal bi dégg ne nam ci dinañ dox wala ñoo ngi dox fil xuquuli si biir tool mu ne yan baxu dina baw wala mi ngi baw alkalb xaj bi dégg kon fi'lu mudaari'un moom day eh, tekki jëf juy teew wala jëf juy dikk dégg nga yan baxu mu ne yan baxu dina baw wala mi ngi baw alkalb xaj bi mu yan tabixu mi garde wala dina yeewu wala mi ngi yeewu alxaarisu gàdd gàdd koor dégg nga kon fi'l mudaari jàppal jëf juy teew lay lay firi wala jëf juy ñëw mu ne takulu mi ngi lekk wala dina lekk al bintu xale bu jigéen mu ne tasbalu mi ngi lax wala dina lax al wardatu fleur dégg kon fi'l mudaari moom moom mooy lii lii lay tekki mooy jëf ju te wala jëf juy ñëw kon soo bàyyee xel euh, si si misaal yi ni moom la jox rek war nga xam fi'lu mudaari moom lu muy tekki wax nañ la benn ñeent yi si lay commencé benn mu commencé si alif wala mu commencé si nun wala mu commencé si ta wala mu commencé si yaa léegi nag alif su commencé si alif bi jàppal ne kenn kuy wax moom moo ko moom fekkee dafa commencé si noon jàppal ne mbooloo buy wax ñoom ñoo ko moom su fekkee dafa commencé nag euh, ci ta moom kenn ku góor ki nga wala kenn ku jigéen ki nga jàkkaarloo wala ñaañu góor ñi nga jàkkaarloo wala ñaañu jigéen ñi nga jàkkaarloo wala mbooloo bu góor ak mbooloo bu jigéen yi nga jàkkaarloo ñoom ñoo xama ak tamit kenn ku jigéen ku fi nekkul ak waa ñoom ñoo xama su fekkee dafa commencé si yaa nag kenn ku góor ku fi nekkul moom moo moom ak mbooloo bu góor bu fi nekkul ak mbooloo bu jigéen bu fi nekkul ak ñaar ñu góor ñu fa nekkul ñoom ñoo ko ñoom ñoo dafa commencé si dégg nga

kon fi'l mudaari moom jàppal ne ñeent yi ci lay commencé ci alif wala si noon wala si taa wala si yaa wax nañ bu nekk ak kan moo moom dégg léegi nag ñoom dañoo waxoon ne fi'l maadi moom su fekkee maanaam euh, si langue olof la maanaam na lay jeexee comme nga ne naan na wala lekk na wala sangu na raxasu na moom fi'l maadi moom su fekkee si olof la na lay jeexee su fekkee nag si fataha si arab la moom fataha lay jeexee comme nga ne akala zahaba shariba yooyu fataha lay jeexe su fekkee si arab <coughs> léegi su fekkee nag euh, si fi'lu mudaari'u la moom mujj gi noo noo koy xàmmee mooy dafa si fi'lu mudaari'u la moom mujj gi dafay xoolal si misaal yi da ngay gis mu rafan yaa ngi gis axselu dafa rafan albasu dafa rafan nalaabu dafa rafan namshi dafa uh, uh, ki uh, yanbaxu dafa rafan dégg moom mujj dangay da gis mu rafan mu ne léegi nag ñu ñëw si inrab dégg kon fi'lu mudaari soo ko bëggee xa xàmme jàppal ne mujj gi dafay rafan maanaam dafay mel ni moom la ñuy wax damm mooy muj gi dafay mel ni ma ab lonk noonu ci kaw mujj mujjante baat mas masque bi day mel ni lu a lonk lonk kon ñu ñëw nag si inraam bi suñ koy inraam xam nga dañoo wax ne fi'lu maadi moom suñ ko mooy fi'lu maadi mabniin ala sukoon waaye nag mooy fi'lu maadi mabniin ala sukoon léegi nag su fekkee si la dañ ko i'raab bi mooy fi'lu mudaari' marfuu'un wa alaamatu raf'ihi ad-dammatu az-zaahiratu ala aaxirihi dégg léegi nag ñu i'rab baati baat euh, fi'l yii ni fi'l mudari ñu suñ koy i'rab ñu jël arsilu mu ne arsilu fi'l mudari marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu ala akhirih arsilu fi'l mudari la bu ñu rafa man la gay rafa mooy si mujj ga mu ne arsilu euh, al fi'l mudari marfu'un wa calaamatu addammatu alzahiratu ala axiri mu ne albesu fi'lu mudaari la buñ rafa mandargaay rafaam mooy damma bu feeñ si wala nga ne fi'lu mudaari la wala nga ne sax jëf ju paase la buñ damma mandargaay bi mooy damma bu mujj nga ne nalaabu eh, fi'lu mudaari'u ma alaamatu raf'ihi ad-dammatu az-zaahiratu alaa aaxirihi nalaabu fi'lu mudaari'u la bu ñu rafa mandargay rafaam mooy damma bu feeñ si mujj ga dégg nga léegi nga ne yanbahu fi'lu mudaari'u marfuu'un wa alaamatu raf'ihi ad-dammatu az-zaahiratu alaa aaxirihi nga ne yantabihu fi'lu mudaari'un marfuu'un wa calaamatu rafcihi ad-dammatu az-zaahiratu calaa aaxirihi nga ne ta'kulu fi'lu mudaari'un marfuu'un wa calaamatu rafcihi ad-dammatu az-zaahiratu calaa aaxirihi nga ne tasbalu fi'lu mudaari'un marfuu'un wa calaamatu rafcihi ad-dammatu az-zaahiratu calaa aaxirihi kon nii la ñu i'raabe fi'lu mudaari'un dégg nga fi'lu mudaari'un marfuu'un wa calaamatu rafcihi ad-dammatu az-zaahiratu calaa aaxirihi dégg nga fi'l mudaari la bu ñu rafan mandargaay rafan mooy damma bu feeñ si mujj ga nii rek lañ koy iraabe nag soo koy sarfu <coughs> wutee nag ak nu ñuy sarfoo maadi mooy jëf ji waaye mudaari mooy jëf teew wala buy dikk léegi soo koy sarfu ah, boole ko damir mooy ana ah, naxnu anta anti antuma antuma antum هو هي هما هما هم hunna soo koy booleeg dam yooyu ñu jël benn baat mooy euh, jël benn baat euh, zahaba nga def ko <coughs> nga def ko mudaari'u mooy yazhab léegi nag soo bëggee wax zahaba zahaba mooy dem na mudaari'u mooy yazhabu dina dem nga bëgg wax ana man dinaa dem nga ne ana azhabu man dinaa dem nga ne nax ñun dinañ dem nahnu nazhabu ñun dina dem <coughs> <coughs> yow ku góor ki danga dem anta tazhabu yow ku jigéen ki danga dem anti tazhabina yéen ñaar ñu góor gi dem antuma tazhaba yéen ñaari jigéen ñi da ngeen dem antuma tazhaba yéen mbooloo bu góor gi da dem antum tazhabuna yéen mbooloo bu jigéen bi da ngeen dem an antunna tazhabna dégg dégg nga dégg léegi nga ñëw si ñu fi nekkul nga ne huwa moom ku góor ki yezabu dina dem hiya moom jigéen ki tazhabu dina dem huma ñoom ñaar ñu góor ñu fi nekkul yazhaba dinañ dem huma ñoom ñaar jigéen ñu fi nekkul tazhaba dinañ dem hum bu uh, góor ñu fi nekkul yazhabuna dinañ dem hun na ñoom mbooloo bu jigéen bu fi nekkul yazhabna dinañ dem dégg kon noonu lañ koy soxfo kon noonu lañ koy soxfo léegi nag ñu ñëw si euh, baxsu bi mu ne al baxsu bi lii mooy lii mooy baxsu bi gëstu bi mu al kalimaat ula baat bu njëkk bi alkalimaatu al ula baat yi njëkk yi fii amsalati saabiqati si misaal jiit kulla bépp si ñoom afaale ay fi'l la mu ne baat yu njëkk yi nii nga gis yëpp si kaw ni ay fi'l la waaw arsilu albasu nalaabu namshi yanbahu yantabihu takulu tazbal yii nii yëpp ay fi'l la dégg li anna kulla minha naka bépp si ñoom yadullu dafay tegtale ala amalin fi zamanin xaas ala amalin si ama jëf fi zamanin xaas si jamono bu jógo mu ne yii nii yëpp moom fi'l yii nii yëpp dafay jaw euh, eh, dafay ama jëf si jamono bu jógo dégg nga moom fi'l yii yëpp wa iza tadabbarta soo seentantale haza zamanu bila jamana haza zamana bila jamana aqaso bu jegoo fii kulli min ha si bi bépp bu nekk wajatahu danga fekk imma mu ne imma benn hajoon mu nekk lu teew imma benn mustaqbilan mu nekk lu ñëw mu ne mu ne soo seetatalee si si fi'l yi rek da nga gis ne moom fi'l yi muy tekk jëf ju teew wala mu nekk jëf juy ñëw moo tax waxoon nañ la ko sànq fi'l mudaari'un moom mooy tekk jëf ju teew wala jëf juy ñëw moo tax wax na la ko mu ne ko soo seetatalee fi'l yi rek da gis ne benn mu nekk euh, lu teew wala luy ñëw mu ne euh, fal fi'lu arsilu fi'lu arsilu yadullu dafay tegtale ala xusuli ala xusuli xasni si amag raxas fi zaman al xaadir si jamono ji teew al mustaqbal wala jamono yi dikk moo ne soo seetante <coughs> euh, soo seetante si fi'lu arsilu euh, mu ne dafay tegtale si jamono ju teew wala jamono ju dikk comme niñ ko waxee woon sànq mu ne wa fi'lu albas fi'lu albas yadul dafay teg ala xusuli euh, lumb si si am ak sol fi zamane xaadis si jamono jamono ju teew al mustaqbal wala jamono ji dikk mu ne tamit soo seetatale euh, mooy euh, fi'lu albasu mu ne dafay tegtale am sol si jamono teew wala jamono ji dikk comme ni nga xamante ne noonu la noonu la la ko waxee sànq mooy euh, soo seetetalee si fin la euh, albas dafay tegtale si am ak euh, raxas si jam na ak ak silikon dafay tegtale si am ak raxas wala si jamono ji tee wala jamono yi ñëw mu ne <coughs> mu ne way sama leen ko tuddee kulla fi'l bépp fi'l min haadihi nawahi min hadi nawi si bile xeet fi'lan mudaari'an fi'lan mudaari'an mu ne soo yeleen misaal yi yëpp comme nii la rek ba tey <coughs> daneen tuddee fi'lan mudaari'an maanaam ñaari misaal rek la la jox may arsil ak albas waaye yeneen misaal yëpp comme noonu la comme nalaabu namshi yanbahu yantabihu takulu tasbal yooyu noonu yëpp jox la ko waaye comme ni la comme nu waxee fi euh, comme nu andee ñaari misaal yi muy euh, axselu ak albas mu ne wa iza nazarta soo xoolee ilaa euh, ilaa xarfi awal si xarfu bu njëkk fi kulli minha fi kulli fi'la si bépp fi'la ni haasi afaan si yëla fi'la wa asbaahiha ay yundu wajatahu fa danga fekk wa asbaha ayu ndooye waja taw fekk nga hamza hamza aw nun aw yaan wala ya aw taan wala ta wa tusamma dana tudde xarfu yi la xarfu hazi axrufu arbaat yi la ñeenti xarfu yi axrufu mudaari xaraf mudaari mu ne soo xoolee si xarfu yu njëkk yi mooy bépp fi'l yi nii rek soo xoolee si xarfu njëkk yi mu ne fekk nañ ko ba mu commencé benn si nun wala si ta wala si ya wala si hamza mu ne xaraf yooyu xaraf yooyu noonu mooy la fi'lu mudaari maanaam fi'lu mudaari si boppam benn mu commencé si alif wala si nun wala si ya wala si ta dégg nga te fi'lu mudaari mujj gi dañ koy rafa dégg nga fi'lu mudaari jàppal ne benn si nun lay commencé wala si ta wala si ya wala si alif waxoon nañ noon kan moo ñan ñuy wax ñoo ko moom ak alif ak ta ak yaa dégg kon fi'l mudari moom si ni lay commencé waaye mujj jigéen nag dafay dafay rafa ka kañ lay rafa mooy xarfu jazm jazm duggul ak xarfu nasb waaye xarfu nasb ak si duggee dafay xarfu jazm su si duggee dafay sukkoon ma dégg nga waaye xarfu nasab su si duggee dafay nasab mooy day fatha waaye suñ ñaaye benn bu ci dugg rek boobaa day rafa ba tey comme ni muy rafa mu al fi'l mudari' fi'l mudari' léegi nag ñu ñëw si alqaida euh, bi alqaida li mooy tënk bi mooy luy wax li ñu wax si dars bi yëpp lii rek moom mooy si tënk bi waaye qaida moom dañ koy mokkal mu ne alqaida li mooy tënk bi mu ne الفعل مضارع فعل مضارع هو moom كل فعل mooy bépp فعل يدل dafay tegtale على حصول عمل si amal jëf في زمن حاضر si jamono ji teew أو المستقبل wala jamono bu ñëw mu ne فعل مضارع mooy فعل boo xamante ne dafay tekki jëf si jamono ju teew wala jamono ji ñëw wax nañ ko sànq فعل مضارع dafay tekki dafay tek jamono ji teew wala jamono ji ñëw ne wala budda wala budda du mën a ñàkk an yakuna mu nekk mabdu an bu commencé bi xarfin si xarfu min axfin mudaari si xarfu mudaara ñoom alhamza muy hamza wa nun ak nun wa yaa ak yaa wa taa ak taa mun ko mun ta ñàkk force da koy benn mu commencé si alif wala si nuun wala si yaa wala si ta munta ñàkk force dafay commencé benn si ñeenti kon lii mooy darsu tey kon daal luy fi'l mudaara noo ko bëgg a xàmmee mooy fi'l mudaara benn mu commencé si alif wala si nuun wala si yaa wala si ta mujj gi nafa euh, naka lay def mooy dafay rafaa mujj gi dafay rafaa kañ lay rafaa mooy su xarfu jazm jazm ak xarfu nasab su dugut dafay rafaa waaye nag xarfu jasam su si duggee dafay sukkoon nasab su si duggee xarfu nasab su si duggee dafay fata kon lii mooy darsu tey bi lu si jub si yàlla la waaye lu si dëgg suñ gàtt xam-xam la suñ néew gëstu in urida illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu